une évolution que xam nga lu tax am na réew yoo xamee ni xalaatoo fa taxawal mouvement nekkuñu ñu Russie nag boo xamee ni ci jamono yi ba ñuy tàmbalee naan dañ xeex ak Ukraine ku ñu gis nga yore sa téléphone sax ne ni d'accord ma ci xeex bi nekk russe nekk ca Russie police ñëw jël la yóbbu téye nañ fi plusieurs personnes nekk ñu Russie Sénégal la ñu ne Sénégal un modèle de démocratie en Afrique de manière générale et même dans le monde am na benn téere bu Africa Jom Center euh, génne fan yi di wax ci wàllu démocratie boobu euh, am na tontu yu jóge ci nguur gi ku ci mel ni euh, Abdou Karim Fofana wala le ministre Ismaël Madior Fall ministre de la justice garde so Sceaux lañ leen wax mooy ni y a rien de neuf soleil li ngeen di wax ci seen téere bi ñun soxaluñu lenn moo ci bees am na ku ma ci dégg mu naan lenn moo ci bees mooy ni tudd ngeen ni Ousmane Sonko ci biir mbir mi ak euh, mbirum insurrection yooyu kon jàpp ngeen yéen d'accord ngeen yéen waa Africa Jom Center ak ki jiite ni Ousmane Sonko tey moom mooy euh, indi jafe-jafe donc loolu mooy tontu nguur gi mais quand on a un un document de ce genre yow miy nguur mais bu ko xoolee politique. xoolee ko mm-hmm. naa ci jël li baax. Mm-hmm. laa ci jël la ma war a soppi naa dindi li nga xamee ni euh, jàpp naa ni dem ko wala a améliorer ma améliorer ko. après la démocratie se poursuit gis nga suñ démocratie bii nii ñuy ñuy ñuy bàkkoo nañu fexe mu gën a jëm ci kanam mais bañ a dellu ginnaaw je dis sur tous les plateaux depuis ay jamono nañu moytu di xalaat ay mbirum ay guerre civile wala Barthélémy Dias je l'ai entendu mu naan bu ñu demul ci wàllu lii boo maywul euh, élection bu amul ak yooyu mën nañu dem ba euh, réew mi civil dootu ko jiite loolu mooy lan mooy coup d'état am wala militaire jiitu ko nañu moytu wax yooyu ñuy wax ci wàllu woowu nañu moytu di dugal xelu nit ñi ni mbirum ay guerre civile wala ay coup d'état réew yi ka defoon yépp ci Afrique gi tey ñu ngi koy rëccu te ñu ngi jéem a seet nu ñuy jogaate parce que dafa am gàllankoor bu bari boo xam ne indi na ko xam nga lan mooy indi nag coup d'état bañ a am euh, insurrection bañ a am fitna bañ a am mooy ku nekk nga jox ko sa ak sa yelleef mooy lan opposition damaa bëgg def nangam jox ko àqam ak yàlla fam citoyen la mu euh, mouvement de soutien wala mouvement euh, nu ñu koy weeti société civile damaa bëgg def nangam jox ko àqam ak yelleefam citoyen tamit na ci gouvernement bi tamit. gouvernement bi tamit gouvernement bi. mais le gouvernement xam nga luy gouvernement euh, Alamine. Hmm. ak président de la république. yow da nga dem voté ji Mansour dem voté ji Talla dem voté ji ma dem voté ji Mansour ne ni man voté lu ma Macky Sall maa ngi votel Maître El Hadji Diouf yow nga ne voteluma euh, Maître El Hadji Diouf euh, maa ngi votel euh, Abdou Diouf ku nekk def sa choix mais ñu xool ci choix yooyu yëpp ñu seet kan moo ci majorité jël ko jox ko réew ku ñu dénk réew nag dañ laa dénk ne ñu suñu réew yaay xool nag comme dénk nañ la ko jox la assemblée nationale ngay voté ay loi loi yoo xam ne moo ko tax jóg mooy ñun askan wi ñu gis suñu bopp ci li ngay le temps que locataire nga ca palais nga am benn contrat à durée déterminée ñu ne cinq ans ngay fay def bu dee la nga téyee palais bi baax na mën nañ laa yokkaatal cinq ans ci constitution bu mujj muy ñaari ñaari ñaari mandat ñu ne la ah kii de jox nañ ko cinq ans waaye nu mu ñu téyelee palais bi baaxul ñu jële la fa gis nañ fa États-Unis y a pas plus grande démocratie que les États-Unis Donald Trump président États-Unis def benn mandat ñu ne ko merci doy na ndax nag ñu téyelee suñu réew bëggewuñu noonu on doit si suñu xalaat sama xalaat bu gàtt gën a renforcer la démocratie ku ci nekk sa wàll nga def ko li tax ma ne la gouvernement ma jox la misaal boobu mooy gouvernement également moom am na sañ-sañu ne ni lii moo gën ci sama askan pas ci Ousmane Sonko wala Barthélemy Diaz wala Bougane Gueye Dany mais ci ensemble daanaam ci majorité. moom la ñu jàll ci ci manifestation la ñuy amal euh, tey jii peut-être mën nañu fa euh, gën a fësal li nga xam ne moom moo tax ñu taxawal F24 euh, taxaw gën a firndeel ni li leen tax a jóg mooy mooy xeex ñetteelu candidature bu jiitu réew mi mais dañu gis ni boo sàngantuwul dara mën na fa xew ba message bi ñuy jàllale du jàll ndax gis nañ société civile bi ñu fi wootee ni ñu defoon Pape Djibril Fall loolu moo gën a fës ak li nga xam ne ci moom moom lañ bëggoon a fësal mhm. xam nga Pape Djibril Fall li ñu ko defoon juum te la bu tegu ci yabaat mooy li may wax booy yi nga xam ne xamuñu politique xamuñu militantisme émotion ak partisan fanatisme sax fanatisme ak yaree di koosi yooyu yooyu mënuñ continuer parce que en matière politique Pape Djibril Fall bi muy créé ji listam bi muy financé xaalisam bi muy wër ci dëkk bi du bu amee benn député am da koy yàkkal Macky Sall wala da koy yàkkal Yewwi wala da koy yàkkal Wallu dafa demander Sénégalais yu ko wóolu ñu jox ko seen ay kàddu pour mu représenter leen à l' assemblée nationale. te moo demal boppam. te moo demal boppam. du coalition comme yu ngay toog yabaate la. et dafa yaru rek dafa discipliné. mais dara obligé ko obligé ko woon sax boppam mu dem. ndaje yu mel noonu. foog ñu xamal parti politique yi. ni kenn moomu ko. ku ñëw bokk si. dafa am lu la fi indi noo bokk see muy démocratie bi ma sama bi bi li ma may moom la la may ñu ñoo bokk si bu ñu fa indee bu ñu fa indee yu mel noonu diw moo fi nekk diw moo fi nekk diw moo fi nekk dañuy daal di violer principe bi nga xam ni moo tax ñu taxawal F24 je pense que ñi nga xam ñoo ko sos nekk ay société civile nekk ay militants di peuple nga xam ni bokkuñu ci benn obédience politique duñu nangu Euh, ñenn ñi am par par la ci wàllu politique ak seen i fait divers di yàq seen ndaje euh, ni ma koy waxee bi ñuy soog a créé journal yi doon jar cent franc ay trac ay frasque ñu gënoon a jar parce que ay mœurs ay mœurs ay mœurs Sénégal daf bëgg fait divers mais fait divers yooyu ak tey li xew ci géew politique bi pratiquement lépp ay fait divers la bi ray moo tax ay acteurs politiques fait divers laa leen di woowee yooyu nag foog ñu éviter ko ci ndaje yu mel ni ndaje mu ngoon bi parce que bu fekkente ni bi da ngay yóbbu message bu am ful la di demander loo xam ni mooy sa ëllëgu réew doo ko teg ci caprice doo ko teg ci parparloo doo ko teg ci ñàkk dëggu leader bu nekk am nga sañ-sañu bokk si mais moi je pense bu ñu bëggee lu honnête sax kenn ku nekk war ngaa wax sa militant ni ko pancarte bi ngay bind turu Mamadou Mansour enlever ma ko vive la démocratie rek un peu de respect ci Sénégalais yi quoi. muy euh, clash bi am fan yi ci diggante Yewwi Askan Wi nañu feex ba mu am diggante benn parti ci société civile ak yeneen parti politique yu nekk ci opposition. président Macky Sall ci moom lañ njëkk a déggee kàddu googu mu ni soit avec moi ou contre moi mais loolu loolu loolu loolu règle ñun dañu juddu fekk fi al wusta muy juste milieu. Hmm. bu la neexee doo far bu la neexee nga far Birahim mu ngi koy wax sànq. ci li ñu suñu métier tënk et pourtant métier boobu li ñuy tënk tënk am na ñu ko xotti ba tax ndollu ci métier bi ba falu falu politique c'est ça et pourtant kenn mën leen woon a tee xañ euh, ñu defoon la ñu defoon noonu ba xëy tey falu yow nag boo continuer tënk ci biir métier boobu mais kenn ku am fu mu féeti ci wàll politique mënulaa tee joxe sa xalaat ci ni réew mi doxee mooy li may faral di wax sañsañ bi nga am sos parti wala mouvement sañ-sañ bi nga am milité ci parti bu la neex keneen am sañ-sañ bi du ma bokk fen mais damay joxe sama xalaat ci réew mi loolu mooy problème tey ñu nekk ci nguur gi boo bindee téere boo waxee même boo waxee dëgg benn page la ñuy xool tontu la mooy li Ibrahima di wax sànq ci téere waa Africa Jom Santé bi réponse bi jóge ci nguur gi du réponse benn boo xam ne wane na ni ñii di tontu naw loolu la ñu